matériel matériel bi ñuy sóob yóbbu géej ay millions moo ñu koy may léegi nag su fekkee ni population boobu war a dund ci géej gi seen yaakaar yëpp ñu wekk ci war cee dundal seen njaboot tey ay bateau chinois jógee ci àll ba ñëw bëgg leen a xañ loolu loolu day métti trop suñu te it nekkul loo xam ne dañ koy nangu dañu def alerte nag ministre bi ak suñu président parce que bëgguñu fajal suñu bopp te it mën nañ ko ay xale ñoo fi ne am nañu fëggu am nañu fit mais dañu bëgg a teg lépp si yoon nañ ci wax suñuy kilifa grande côte bi la ñu bëggatul gis benn bateau le député du peuple nappkat yi nee nañu bateau yi nekk sa euh, biir géej bateau yu chinois ñu te ñooy dal seen kaw yàqal leen ba noppi ba leen fa. Euh, raatale seen géej si yóbbu ko c'est-à-dire que euh, napp gi ni koy defee fii ci Sénégal ci licence de pêche yi dafa sax dafa sax ñaaw ci bateau étranger yi nga xam ni chaque jour ñu nekk ci napp mi dañu koy joytu c'est-à-dire question bi ñuy laaj mooy suñu ay gouvernants est-ce que ñoo ngi bàyyi xel ci joytu askan wi nga xam ni ñoom la ñu jiite parce que mënuñoo dëkkee chaque jour nappkat yi di wax ni boto yi ni ñuy nappee baaxul boto yi ni ñuy nappee yenn saa yi ñu agressé leen boto yi ni ñuy nappe dañuy yàq suñu géej gi bato yi ni ñuy nappe dañuy yàq suñu jën yi alors que mënuñoo fexe ba indi benn changement ci kàddu jàmbat googu te chaque jour ñu gis suñu ay nappkat yu ñuy arrêté Mauritanie suñuy nappkat yu ñuy arrêté Guinée ñooñu ëpp ñu ñu géej ëpp ñu ñu ay jën gestion lañ ñu gën a baaxlee donc nañ xoolaat ci wàllu jën yi mënoo commencé li ko commencé Saint-Louis ba fi géej gi yam ci diwaanu Casamance Sénégal li mu am ci géej après ñuy dund ay jafe-jafe jën dangay dem ci marché bi tey benn 4 mètres jar 500 nga xam ni dañu doon boole ñaar wala ñett jaayee la ko 25 ñaar ñu jaayee ko dërëm ay temps. Mhm. ñaari yaboy dërëm yàgg na ñun dañu ko doon sax way bi ñuy xale ñaari yaboy dërëm. Euh, tey benn yaboy boobu nga xam ñaar moo doon nekk dërëm moom lañ lay jaayee 500. Mhm. ba ci taatu tefes gi donc y' a problème. te loolu kilifa yi xam nañu ko xëy na nag ñoom jëndum jën wàcc na leen xëy na ñoom xamuñu marché bi dafay am nan la tudd mais itam nañ régler situation napp mi nga xam ne ay junniy junniy nit ñoo ci ñoo ci ñoo ci dund ñoo ci aj seen yaakaar. Mhm. alors Birahim suñu mbokki nappkat nee nañ ñoom dañu mel ni ay étranger ci seen biiram réew. waaw xam nga en fait gis nga la débat sur la spoliation des ressources marines wala maritimes du du du dakk fileeg defuñu comme lu ñu wax. ci ressources naturelles yi bu fekkee ni dañoo am pétrole am gaz am lu mën a doon ci suñu suuf ñu ne nii dañuy teg nañu kuréel goo xamee ni sénégalais bi daf ci am droit de regard xam ne signé nuñu contrat ak société nangam buy bu yore wàllu pétrole wala bu yore wàllu gaz nangami baril ci wàllu pétrole la ñu war a jël wala nangami ci ay mètre cube ci wàllu gaz la ñu war a am xam daanaka lépp lu soxal mbirub ressources naturelles yi ndax dañu ko bind ba yokk ko ci li nga xam ne moom mooy suñu constitution mais ci ressources naturelles yooyu mais géej gi ci la bokk tey dañu war a am benn droit de regard sénégalais bu mu mën a doon ci ñaata bateau ñoom ñoo am euh, lu ñu signé déggoo ko ak gouvernement bu Sénégal ci lu jëm ci wàllu napp bi ñuy napp ci suñuy géej ñu xam ñaata tonne la ñu war a jël ci géej gi ci tonnes yooyu yan xeetu jën lay doon parce que am na jën yoo xamee ni euh, au plan mondial dañ naan ni am ñu sañ-sañu par exemple napp ko euh, wala jël ko ci yenn géej yi parce que il faut que mu am sax repos biologique mhm. il faut que mu am leneen ak leneen donc droit de regard boobu tant que sénégalais bi joxuñu ko bu mu mën a xam ñaata bato ñoom ñoo fi am sañ-sañu napp ci suñuy géej mhm. mais problème yi du jeex parce que euh, ki yore gaalam gu ndaw Euh, peut-être di muy suturloo di quelques kilos euh, jën yi nga xamee ne mën na koo napp euh, yóbbu ko ci njabootam yenn ni mu jaay ko mën cee peut-être dund ñaari fan ñetti fan delluwaat ci géej loolu bu fekkee ne da nga ko ko xañ ndax ay bateau yu mag mm-hmm. mais woot nañu xam bateau yooyu ban sañ-sañ lañu am ay contrat ci wàllu pêche yàgg na fi ñu koy coow wax nañ fi uh-huh. waxu accord de pêche ci ay jamono yi Abdou Diouf waxte ci jamono yu ab Wade. dellu si waat ba tey ji mais il faut nécessairement ñu leeral ko une bonne fois pour toutes. ñu leeral ko une bonne fois pour toutes leneen lañu ñu leeral ba noppi moo di ubbiteeg l'école ji ren ji ndax xam ngeen ne kon jàngalekat yi ndongo yi faw ñu ñax ñàkku ji loole mooy euh, dogal bi euh, yees loolee nag coordonnateur bu IAA yi ba noppi te moom Gana Sène nekk inspecteur d'académie bu Pikine bu Guédiawaye mu ngi koy rafetlu ba noppi xam ne école bu bee ñoom daañu si xar seen tànk tubéy ba lépp antu ñu teewlu ay kàddoom Bakhaline Badara Sonko. wa wàllum ñàkku dama yaakaar ne euh, lu am solo la te jàngalekat yi en tout dans leur grande majorité maanaam ñi ci ëpp bi Covid bi dooree sax ñu ci bëri dañu doon euh, ñaxtu pour que ñu ñàkk la kon tey jii ministre de la santé su demee ba annoncé lool ñun vraiment dañu ci am am dañ ci kontaan bu baax rawatina fii ci Pikine Guédiawaye ba nga xam ne action yi nga xam ne ñun dañ ko war a def jëmale ko ci rentrée bi dinañ ko gis léegi ci rapport bi wàllum ñàkk jàngalekat yi ci la bokk point la boo xamante nii dugal nañ ko ci biir donc am naa yaakaar ne ñàkk boobu lu am solo la parce que bu ñu fàtte ne école ak lu mën am muy crise sanitaire muy guerre yàlla tere muy ak lu mën am crise mun am école dañ ko war a protéger ci wàllu mbas mi ni ñu mën a protéger école bi mooy protégé xale yi te xale yi pour ñu protégé il faut que jàngalekat yi nekk ñoom ak diir yu yàgg a yàgg ñàkk protéger seen bopp que xale yi ëllëg ñu mën a protéger seen famille kon wàllum ñàkk bi lu am solo la elage ñàkk bi nga xam ne dañ ko euh, sàkku ci jàngalekat yeex euh, ndongo yi ubbi teg l'école ji noo ko jàngate euh, décision bu tey xel décision bu tey xel parce que naka jekk bu fekkee am na réew yoo xam ne dañu exiger li ñuy wax passe mais ñun egguñu foofu parce que saxalaguñu benn yoon ci suñu ay loi luy wane nit ki vacciné wu dafa war a nekk loo xam ne obligation la ci moom amagul luwaa bu koy saxal France dafa am seen conseil constitutionnel moo jël dogal ba ñu def ci benn benn breaking news bu yaatu boo xamante ni bii euh, dañu ci employé ay nit yu bëree bëri surtout agence intérimaire yi nga xam ne dañuy liggéey foofu ak ay nit nga xam ñu bëri dañu doon sax def demande d'emploi ñoom ñëpp mujj am liggéey ci liggéey ci biir pàcc googu nga xam ni ci wàllu koom-koom am na lu muy jur muy pass santé boobu noonu nga xam ni euh, benn benn benn euh, baar la boo xamante ni bii mën nga ko sax def ci sa ci sa portable pour justifier que yow vacciné wu nga wala déet mais ñun eggaguñu foofu ci wàllu koom-koom eggaguñu foofu ci wàllu loi bu ñu bëggee egg juger benn partie ci population bu Sénégal muy jàngalekat ak élèves yi ñu egg juger leen ñu vacciné wu te soppiwuñu benn loi loolu dafay poser problème parce que am na ñoo xamante ni bii du question du question